liggéey bi jëm ci taxawal këru Serigne Touba foofe ca stade bu Mbàkke ba woon mi ngi am kenn ni nga xamee ni noonu la ko xalif général des mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbàkke bëggee mu santaane ko nag mu daal di tàmbaliwaat niki alarba ji yamoo ko ñaari fan ci weeru juin bi ñu jàll ci loolee ki yor kàddoom di Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbàkke ànd kook ki nga xamee ni moom mooy Serigne Cheikh Abdou Latif Mbàkke ñu daal di dem ci bërëb boobee nga xamee ni mooy dalal boobu këru Serigne Touba di njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall dalal leen noonee lañ daal di yëkkati ay kàddu Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacke moo jottali kàddu yi Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacke mi nga xamee ni moo yor kàddu ko Serigne Mountakha Mbacke ni ko noonee ñëwaat na solo sa liggéey bi nga xamee ni sumb nañ ko te ki nga xamee ne nag mooy xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacke wóolu njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ngir ñu mën koo doxal ni ki noonee ñëwaat na ci lu waral liggéey bi taxawoon ab diir te te loolee lu ko waral du lenn dul mbas bi di coronavirus gi ginnaaw si bi nga xamee ne yeneen liggéey yëpp mënata woon xaar mu jëm ci benn yi ñu doon yóbbu ca résidence Cheikhul Khadim ci jamonoy koor bi ñu weesu ginnaaw si loolu rafetlu nu liggéey bi nga xamee ni mi ngi dox bu baax a baax ngir mu mun a yegg ci jimmi jamono yeggali na kàdduy cant ak gërëm bu xalif général des mourides mun Mountakha Mbacké jottalil ko njabootu maam Cheikh Ibrahima fal te xalif général de Baye Fall muy Serigne Cheikh Jëmm Fall toogal ko fii jamono ji